Fatou Géwël dafa génn fan yi di dal ci kaw Bouba Ndour bu baax ak ci kaw TFM lu ko waral moom nee na waa TFM dafa déglante na ñoom ne buy def anniversaire am grand théâtre waa TFM dinañ ko wane direct waaye li ko ci jaaxal mooy jour anniversaire bi dañ ko woo ne ko affaire bi wanewuñ ko TFM loolu nag dafa yàq anniversaire am loolu daf ko naqari ba mu génn di wax Fatou Guewel kenn mosu ko dégg ci wax kon nag bu demee ba wax rek am na lu lu ko metti mais li ñu ci jaaxal mooy TFM dafa yàgg liggéey ak Fatou Guewel Fatou ci boppam nee na ñaari anniversaire yu mujj yi TFM moo ko ko defal te lépp a baax kon ñetteel bi bu amee problème ba moom muy génn di wax ñu jaaxal lool parce que ñun li ñu jàpp mooy ne Fatou Guewel TFM la dëkk comme ni ko Boubou Ndour waxee te TFM bu la jëlee wane la doo fay waaye nag ñoom am nañ ci dara ndax ñu ngi lay wane te loolu programme la waaw lu tax Boubou Ndour ba ko Fatou ak waaw Fatou Guewel woowee di ko pour laaj ko li tax wane wuñu Boubou Ndour jëlul téléphone bi li tax mu jaaxal ñu mooy Boubou Ndour wax dëgg personnalité la ci dëkk bi Bouba Ndour dafay génn jàkkaarloo di yeete di defar jikko kon nag bu ñu gisee mu am problème daf ñuy jaaxal ñun képp kuy génn tele war a defar jikko bu ñu gisee nga def loo safaan ñu dinañ ci génn dinañ ci wax. ndax ñiy génn tele di yar di wax ñooñu ñoo war a wone bon exemple maanaam lii rafet ñoom dañ ko war a jëfee waruñu nekk rek ci tele bi di ko wax dañ ko war a jëfee loolu tax saala bii gi bu ñu yëgee ne dafa mbéj njolle. ñun ñu génn ñu wax ci ñu ne ah Salla Bigué bu fekkee ne lii yow yaa ko def waratoo génn télé Salla nag génnaat na di wax na nit ñi dañu war a maandu yonent bi nee na lii yàlla nee na nii da nga war a maandu ci yëfu nit waaye njolle xanaa amul doful bay génn di wax ne dañ ko mbéj te kenn mbéj ko waaye pour ñëwaat ci Bouba Ndour gis nañ ay artistes yu mel ni Djibril Diop moom it génnaat fan yi di ne dañ ko sëriñtoo waaw moom nee na tëdd na weer yoo xam ne mënul jóg moom nee na dañ ko sëriñtu te buuba te ci Jibril Diop ñëpp xam nañ ne prince aar la bokkoon te moom ci boppam way na fi buuba Ndour kon nag bu ñu gisee carrière am yàqu te bëgg léegi xamuñu lan moo tax carrière am yàqu te moom ñemewul wax kon ñu ne tamit duñ ko waxal duñ naan buuba Ndour moo def lii wala Ngoné Ndour moo def lii yéen bu fekkee dafa am loo leen naqari da ngeen def ni Fatou Gueye ngeen génn ngeen wax waaye kenn du fi nekk du leen waxal ñoom buuba Ndour nag c'est vrai que ñëpp dañ leen di attaqué kon mënuñu xam ndax attaque yi dëgg wala du dëgg waaye ñun daal li ñuy wax daal mooy buuba famille Youssou Ndour bu leen fàtte ne Youssou Ndour personnalité la ci dëkk bi Youssou Ndour c'est un ministre de la République référence la kon lépp loo xam ne dafay takkal Bouba Ndour wala mu takk euh, dal ci kaw Ngoné Ndour dafay laal Youssou Ndour lépp lu loo xam ne Youssou Ndour def na ko wala Ngoné Ndour def na ko wala Bouba Ndour def na ko lu rafet loolu tamit dafa baax ci Youssou Ndour loolu tax ba ñu gisee Aïda Samb enfin mu def grand théâtre dañ ci kontaan ndax man mii génnoo a fi vidéo di naqarlu naan lu tax Aïda Samb boobu ba léegi deful grand théâtre Momo Dieng ñëw fi bërki démb def grand man contre ma Momo Dieng waaye nag gis nañ ne TFM defal nañ ko grand théâtre bu baax mu réussir ñun loolu lañu soxla ci famille Ndourène ñu continuer di jàppale artistes yi léegi nag yaag xam nañ ne bu Ndour dina génn te bu génnee dina joxe explication xëy na seen machine ñoo paanoon am na lu tax wane wuñu direct bi te Bouba Ndour bu boobaa dina génn ñu la li leen di ñaan mooy mu wax ak euh, Fatou Guewel ñu jéem a rataxal diggante bi continuer jàppale artistes si ndax loolu mooy développer yow merci